bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñoo ngi leen di siyaare ñi ngi leen jaajëfal tey nag dañoo ñëwaat ak yéen ci secret kattan boo xamante si nii bu doyo doy waar la boo xamante si nii bu ko nit ki jëfandikoo rek da ciy daal di gis résultat diirub juróom ñaari fan diirub sept jours ci ñu koy jëfandikoo gis ci résultat bu jéggi dayoo incha allah dangay dem ci suuratul baqara nga dem ci aaya 163 su boo fa àggee da nga fa fekk euh, ñetti baat yi may bëgg a tudd mooy annal xuwata lillahi jamihan ñetti baat yooyu yooyu rek ngay bind waaye dangay jël sa da ngay adda sa tur adda sa turu yaay boole boole mu boole ko jox la benn lim nga bind ko aaya boobu annal xuwata lillahi jamihan su ko defee boo paree da ngay wut reeni keng reeni keng ngay wut ak reeni enkeleñ ñaari reen yooyu nga booleen ak saafara si xooj ko di si ñaan jëfandikoo ko diiru juróom-ñaari fan la koy naan mais nag lii kenn du ko naan euh, ci suba gi wala bëccëg gi guddi rek lañ koy naan waaw guddi ba guddi ci lañ koy naan waaw boo paree nag nga bind bii teg ko téere balaa boobu yow mi nga xamante ne da ngaa bëgg a def li à distance wala nga bëgg a xam sa tabian wala nga bëgg xam sa biddiw wala nga bëgg xam say mbir bopp li ñëw ci yow li li weesu ci yow wala ak li nga xamante ne moo la moo jublu mooy ñëw ci yow ñaaree ba tamit ki nga xam ne sa yaram dafa taq ci wàllu cat ak uh, wàllu yaakaar mi tas ak i gàllankoor rek jafe-jafe ak mbir yu yàqu ak uh, alal joo xam ne dugg ci loxo waaye dafa mën a taxaw koo xamante ni ak farro wala lu mën a doon su ko defee butéel bii ngeen di jàkkaarloo mooy li koy dindi ci gaaw a gaaw gaaw diirum ñetti fan rek sa yaram set wicc ba nga mel ne ni nga juddoo woon ci sa ndey ak ci sa baay su loolu jàllee ki nga xam ne dafa bëgg jaaro bi nga xamante ne ci wërsëg lay dox ci bayre ci kaaraange ba tey mën na fee jàpp ne incha allah kàttan yi ñu leen di jox nag xam ne ne dafa bëri ñoo xamante ne seen jàngoro lool la ñi ko mën liggéey seen bopp nañ ko liggéey ñi ko mënta liggéey tamit am na fi kàttan yoo xam ne liggéey nañ ko pare kàttan yi jooni jooni la wala yoo xamante ne tamit ci kàttan lay dox da lay defal traitement ba nga wér kéng incha allah su loolu jàllee mën ngaa bindaat tamit euh, aaya bi anna al xuwata lillahi mën nga ko bind euh, adatu xawiyu moom nga koy bind aw ko téere takk ko dina leen dimbali bu baax a baax a baax ci ñu doon gaaw yegg di gaaw a daanoo yi ci aju jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu liggéey bu metti ket wala rab jokkol ak sëriñ mam cheikh ndiaye jafe-jafe si néegub sëy góor bu tële wala mbëggeel bu am ay tolof-tolof ngay wut këyit nekk bitim réew soo bëggee promotion sa biir liggéey wuteel gaaw 77 861 77 61 78 138 38 110 chaîne youtube Salam Asrar Asrar